ñu ngi am mbégte di amat kontaan di siyaare mbokku internet yi rawatina mbokku Diaspora TV tey nag maa ngi sama kër kon ma koy waxee kër suñu papa Fall père Dubales di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ñu kii nag moom jaakaar lool yaakaar naa ne miin ngeen ko ci Sénégal 5 point com miin ngeen ko tamit si man muy élu fils de Fallaye lañ koy wax. nekk xale boo xamante ni def na fi trois sorties yàlla suturaal ko may ko ci ndam benn bi mu ñàkkoon ko ba mu mujjee dox ci digganteem moog 8 fii Ah, kon ni mu ko waxee noonu la ko defee gannaaw loolu dañ koy bàyyi mu nuyoo mbokk internet dañu waxtaan ak moom tuuti si actualité doo ko dugg moom si tax combat mi di yéex yëpp nañ si waxtaan ak moom ba xam ndax xale yi ñooy da avance am wala ndax gune dañ koo ñu ngi lay ziar nuyu di la ziar di nuyu àdduna mhm. nuyu tamit ñu may seetaan xam di sant samay ñaari waajur di wax sama papa yàlla ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana mhm. fi mu tëdd yàlla ko gënal fi mu jóge mhm. waaw yal na yàlla yokk leeram te taas ñu si barkeem. mooy nuyu àdduna tamit di nuyu ñëpp. Mm-hmm. di nuyu koñ bi mu dëgg ñëpp maa leen nuyu sama booy gaayab mm-hmm. maa leen ziar di leen nuyu. comme ni nga ko waxee rek sa papa ndeysaanam mu nekkoon koo xamante ne sa xarit la woon ku la jege la woon ana elu tey ba nga dee ba gisatoo paa bi naka nga dundee lool naka nga ko réagiré. waaw métti na torop parce que yaakaar naa ne sama papa mën naa ne koñ bi fii yëpp xam nañ ni mu meloon man. Mm-hmm. mun naa ne nekkul woon sax sama papa sama maam la woon. Mhm. parce yaakaar naa ne minoon naa ko min goo xamante ne mun naa la wax ne amul fu mu yam. Mhm. man moom mooy loolu noonu mais tamit bàyyi nekk si koñ bi. Mhm. ñoom it nañu benn yoon wax dëgg neex yàlla. parce que yaakaar naa ne bu ñu ngi koy fecc. parce que naa ne du ma taay du ñu taay di ma woo di ma conseil. taxawuma tamit comme sama papa ni ma doon taxawoo paa nekk si koñ bi yëpp. su ma muy damay juum ay paa ay paa timbera paa yëpp seetaan nañ ma daal. Mm-hmm. ñu ngi may taxaw tamit di ma ñaanal. Mm-hmm. te aussi tamit ñu ngi may jàppale. Mm-hmm. lan ngay fàttaliku ci dernière semaine bu nga xamante ne laataa paa bee làqu lan nga fàttaliku ci moom lu ngeen dund yéen ñaar mu marqué la trop. waaw loolu dëgg la Siteu yaakaar naa sam papa li ma mën a wax si moom bari na bariwul. parce que yaakaar naa ne sama papa man ak moom mooy loolu. yaakaar naa li ma mën a fàttaliku si moom mu remarqué ma te damay toog man kese. di ko fàttaliku. mu ne alaaji ma ne ko naam. Mhm. mu ne ma gëmal sa bopp. Mhm. bis dina ñëw. Mhm. àdduna yëpp dinañ la dégg. ndeysaan. billaay. te wax jooj noonu bi ma koy wax waxu ko ngir dara waxu ko ngir kii. daf ma xool xool ba mu neexu mu ma ñëw. mu ne ma li ma lay dénk mooy nga gëm sa bopp bis boo gëmee sa bopp àdduna yëpp dinañ la dégg. te yàlla moom def na loolu si man man moom wax fa dëgg ne bu dee gëm sa bopp. mu ngi si man te loolu damay toog di ko xalaat mu remarqué ma torop torop torop. billaay ba Siteu su ma koy xalaat sax samay rongoñ day bëgg a toox. ndeysaan muy yoo xamante ni booy entraîné wala boo nekkee ci dara daal rek sa xel day demaat si loolu. si loolu. Mm-hmm. moo tax damay rey sama bopp. Mm-hmm. te yow sax yaakaar naa war nga gis loolu te war nga xam loolu. dëgg la waaw. Mm-hmm. parce que koñ bi ma yeewoo moom naa ne ñoom lañ may seedeel. hélas mun nga kaa lu ne élu mun nga kaa seedeel lu ne. mais entraînement non da koy jóg gëdd ak fulla ak fayda. wax fa dëgg neex yàlla. te loolu ñu may seedeel moom ñaanuma yàlla ñu xëy ba un bon jour dootuñu ko gis si man. moo la saa ma xëyee dama si nekk. Mhm. ñu dugg si actualité rek ñu gis fan yii passé wala barki dem ak Ndiaye Modou Lo ak Balla Gaye ñu def benn sess bu nice yow loolu naka nga ko gisee ñu gëjoon koo gis si diggante jamono Ablaye Wade mu dalaloo leen ñoom ñaar pale tey ñu doxaat ba jamono nga gis la ñu dajewaat en tant que Balla di sa mag. loolu Siteu dama koy rafetlu. Mhm. loolu ñun booy la parce que yaakaar naa ne ñun booyee la war a wan ne làmb doonul loo xamante ne affaire violence la. Mhm. wala affaire noonoo. Mhm. déedéet làmb benn business la boo xamante ne ñun dañ see dugg pour teral suñuy waajur. Mhm. kon yaakaar naa ne tey jii nii jàmm si la lépp tey jii ñun ñooy mayante xaalis. ñu bëree ba pare après nañ nekk ay xarit. sama baaba bu muy jugee Casamance. yaakaar naa ne per Mbaye Gueye moo ko dalal. moo ko dalal te sama papa bëre naa Mbaye Gueye ñaari yoon. Siteu après sama papa ak Mbaye Guèye dafa rafet. ndeysaan. billaay te boo xool rawante wuñ dara. waaw moog sama papa. te dafa rafet. Mhm. làmb dafa doon geste boo xam ne dafa noobul. Mhm. geste boobu geste wu noobul la. te loolu noonu ñu def noonu tey jii nii ñu ngi si am seen xaas parce que dafa doon benn genre pub boo xamante ne. Mhm. après day jàll kenn ku ne faye fayeeku nga sa xaas te bul xam ñaata lañ fayeeku. kon làmb geste noobul la kon ñu ñu si nekk dañ xam ne ñun ay noobul lañ. waaw. ñu jógee si loolu duggaat ngeen jëmaat si benn combat bu am solo mu dox seen diggante yéen ak Bombardier ba nga gisee Balla jógee aéroport ne cëpp lan nga lan njëkk a la parce nekkul nag lu mu doon sama frère wala lu mu doon sama dara moo tax may wax. Mhm. parce que yaakaar naa ne Balla bi mu nee cëpp biir mhm. ne bis boobu Siteu mën naa ne événement la. dëgg la lan lendemain bi événement la. Mhm. parce que tamit indi na état de bu baax wax fa dëgg neex yàlla. Mm-hmm. te Balla Gaye doonul gan si làmb. Mm-hmm. te Balla Gaye moo nekk mbër boo xamante ne noo mënti toll noo mënti mel. Mm-hmm. lijjanti wu la moom indi la lijjanti. te lim indi lay def. loolu moom suñu borom defal na ko ko. te incha allahu rabbi. Bombardier Balla Gaye dina ko daan jël wu sedd wi. moo leen daanoon de revanche ngeen jël si de. waaw loolu dëgg la xam nga yaakaar naa ne làmb. toll na foo xamante ne mbër bu la daanee di nga toon dynamique boo xamante ne mbër bi bu la daanee. Mhm. amaana booy wax sax gars yi dañ naan da ngay salteel mhm. mais Balla Gaye bi ko Bombardier di daan bi mu tolloon si wér-gu-yaramam. Mhm. ak si boppam ak bii. ku xam ne du benn. moom Balla Gaye boobu. moom Balla Gaye boobu te lu premier ngeen ni xam ne carrément Balla Gaye pare na. ba ko Bombardier di daan ak léegi yan changement nga gis ne moom la Balla amoon ñaari diggante ñaari différence Balla Gaye yooyu. non bari na torop. parce que yaakaar naa ne ku xool ñaari image di nga xam ne bokkul. Mm-hmm. parce que boobu Balla Gaye amaana xama mooy loolu mooy li ma la wax. Balla Gaye bu tëddoon ci hôpital di nelaw boo ko indilee mbër dinaan la maa ko mën. nga fay ko xaalis na ko combat bi dimanche mu ne la ñëwal ñu dem bëri. ñëwal ñu dem bëri. moom loolu suñu borom moo ko ko defal moo tax moom des fois day bëreeg sax risque boo xamante ne ñun dañuy tiit dañ naan kii du si génn. du si génn te amaana bu demee jël bu rëy lay daan. Mm-hmm. Balla dina préparer combat am blessure boo xamante ne tey jii. Mhm. amaana yeneen bëri buñ ko amul dañuy reporter combat bi. te da koy soox bëree ko suñu mhm. borom defal ko si ndam lu rëy te kenn du ko xam. Mhm. combat moom Bombardier naka nga gis ne la la war a mën a bëree en tant que yow mbërum làmbo. ak ah, comme d'habitude rek comme ni mu doon def Balla Gaye yaakaar ñun duñ ko conseil te mënuñu ko ak conseil. Balla Gaye ñi si làmb mënuñu ko ak conseil. Balla Gaye moom lu muy def da koy def arbitre ne prime mu dox sa kaw. balaa ngaa def li nga indi moom mu def li mu indi jóge fa. jóge fa moom loolu lay def. Mm-hmm. Mm-hmm. bom combat moo Bombardier est-ce que Balla bëri bi moo ko arrangé wala mu ñëw samp xeex wala mu def la mu doon def rek. comme d'habitude daw arbitre na prip mm-hmm. mu def ay jatam dox sa kaw. door la gauche droite xool fu mu jàpp def action. Balla Gaye moom yaakaar naa ne ay taxaw naan ko xeexal. non du ko def mu bëre la xam bëre la nàmp. te aussi tamit moom maanaam bëre la xam daal. te bu jàppee làmb ji jeex kon kooku lu muy taxaw di xeex Siteu kooku na jàpp rek nit ñi jógee fa. Mhm. Mhm. mu mel ne dina am leneen lu ko gën a manqué ku xam per Double xam fu mu tolloon si njabootami tey mhm. premier combat Balla Gaye mu nar a bëree ji du gisanteeg papaam. waaw loolu tamit dëgg la metti na trop. parce que naa na nga doon am combat. nit ki di la gunge gisatoo ko rek. dafa métti waxuma la ak sa Mm-hmm. gis nañ ni si paa bi doon taxawoo. Mm-hmm. tamit dem esaat gunge ko ba esaat. Mm-hmm. ñaanal ko suñu borom defal ko ndam. mais loolu yaakaar naa ne Siteu mun naa ne sama papa amaana dafa dëddu mais jugee wu fi. dëgg la. parce que yaakaar naa ne mag ñi baax ñi mu doon dem ñu ngi fi. ñu ngi fi suñu papa yi mu doon dem. ñi ñaanal ñu ngi fi. parce que ñooñu tamit aussi seeraan nañu Siteu dañu siy jàpp baax. surtout Casamance bi. surtout Mali bi Siteu. bilaay wallaay dañuy jàppale. Siteu bala Gaye 2 ñu koy ñaanal te xamu leen. Mm-hmm. kenn xamul nu mu tool moom Balla Gaye. moom Balla Gaye 2. Mm-hmm. mën naa ne ñun sax la ñuy wax ñi ñuy ñaanal te xamuñu leen kenn xamul nu mu tool mm-hmm. mais sama papa moo ko liggéey foofu noonu. ñooñu tey ñii ñu ngi fi. dëgg la waaw mais dëgg la métti na torop ngay bëri aussi tamit xam nga ki la doon gunge gisatoo ko. metti na torop torop torop mais incha allahu rabbi yooyu yëpp suñ borom da koy kii Siteu. bala Gaye 2 day am ndam parce que xol bi dafa rafet. combat bi Serigne Bamba Mbacké. Mhm. Balla Gaye booy wër nit jàpp ko. moom Balla. Balla Gaye 2 booy wër ku tabe ak ku gore jàpp ko. Mhm. surtout kooku nit gënu ko si doomu aadama. am na solo. billaay am na solo. Elu fan la toll. Fils de Falaye fan la toll. Elu Fils de Falaye di Siteu maa ngi nii di entraînement guddeeg bëccëg suba ngoon mënu maa am combat. lu waral loolu. mais tamit. xam nga làmb dafa toll foo xamante ne ñi ngay bëgg a bëreel. Mhm. duñu bëgg a bëreeg yow. si bëgg a bëreeg yow. billaay des fois tamit xam nga ñun ñun kii ñun mbëri am na mhm. nu ma ko mën a waxee sax promoteur yi. des fois mhm. tamit am na si ñoo xamante ne du ñëpp nag. dëgg la mais am na si ñoo xamante ne dañoo xaw a yàq làmb quoi. yàq làmb si ban côté si wàllu mbëri ndaw wala si wàllu mbëri ndaw yi. noonu la demee da ngay gis si te mbër bu bëri deux combats trois combats. ñu ne la kaay bëre grand combat. waaw ah, dëgg la de. parce que yaa ngi comprendre léegi succès boobu noonu nga defal mbër bu ndaw boobu noonu amaana tey jii boo ko ñëwee na ko kaay mu daanu nga ñëw ne ko kaay bëreeg fils élu fils de Falla. Mhm. daan la du mu bëreeg moom. parce que maa fi bëreeg grand mhm. loolu lañ lay wax mais tamit aussi ñun mbëri ñun booy yi. amul mhm. combat bëri na torop torop torop. ñun ñooy mayante xaalis. comme ñan nga gis ne fils de Falla war naa mën a bëreeg ñoom. c'est ça mbër di nga bëreeg moom daan ko. moom projet am adversaire am mooy gën foofu bi nga am. waaw oh, loolu de am na. parce que yaa mm-hmm. xam la moo loolu. Mm-hmm. maanaam lam ji ngeen bëree. parce mm-hmm. que yaa boo ko mayee tur may ko bës. amaana di nga bëri moom daan ko de après moom. su jugee si combat bi dina am adversaire xamante ne yow mënoo ko am. dëgg la ñun booy buñ daanantewul kenn du daanu. kenn du daanu dëgg la. Siteu noonu la demee Siteu bëri na booy ñu may wax. amaana seen grand yi seen staff yi. ñooy bañ naan booy bi bu ko jël ginnaaw gi wala tur gi affaire yooyu loolu wul Siteu. te biir géew ba de gannaaw amu fa moom yéen ñaar dafay jëflante rek. su ma demee làmb Balla Gaye 2 mhm. du dugg si enceinte bi. surtout su ma demee làmb Sa du dugg si enceinte bi. man maay dugg si enceinte bi man maay bëre. dëgg la Balla Gaye bëriwul Sa Thiès bëriwul. Mhm. mais booy amaana. Mhm. doon nañ kii boo xamante ne boo leen waxee élu fils de Falaye la frère de Balla Gaye 2. ñu delloo avance bi. Ah, làmb demee dañu gàllaay gi jàpp na lu si nekkoon si ñoom Balla Gaye yow mu ngi si yow. non gis nga dit booy def dara. man tey jii nii gis nga booy position bi ñu tolloon noonu man su ma fa tolloon damay xool ñi gën a metti si làmb. wala ma xool ñi gën a am bës si làmb. wala ma xool ñi nga xamante ne ñii ñoo tax ñu naan làmb. ñu naan làmb ma dem jëli leen daan leen. daan leen. Siteu rako bala gay de du dara. dedet do mu mbeur tay ji beuri nañ fi torop torop. su may lim du ma juum. barke mhm. Serigne Bamba Mbacke amana tay ji ni ni dem def nañ le ni dem nañ def ji lële na mhm. mais amana sen wërse bo dekul ci lamb mhm. mais boy tam lu nga leen mën wax na ñew ñu beure beuri nañ comme ñan amul amul ñu mëna a succès ne ak ñi war ngeen mëna beure pour promoteur yi baye xel senegal 5.com wa com. deug la benn boy ya naa fi la deug sam-sam. te boy tam aussi boy ba am fi la samsam la samsam la booy bu am fit la mm-hmm. parce que booy bi mm-hmm. dañoo bu ma bëree pare dañoo tax sama combat man ak moom mm-hmm. amaana ay grand frère am ñoo bañ mais dafa def interview wax wax ju rafet ndeysaan mu ne booy elu buñ ma ko joxee ñi nga xamante ne ñoo ne naa delloo avance fi la ñuy xam ne carrément booy boobu du dërëm dëgg la wax nit ki da ngay gëm sa boobu dëgg la parce que yaa ngi comprendre mais tey jii booy sukkandiku naan samay staff nii wala gars nee nañ nii naa maytu nii na maytu lii doo bëre booy ba tey amagul combat. te proposé woon nañ la ko te proposé woon nañ ma ko man maa ngi nii awma combat. dëgg la. toogaay bi day xaw a yàgg elo loolu man loolu daf ma jaaxal maanaam booy booy xeetu bëree bi la wala xeetu as gëndoo ma mbërgële la ñuy da wala promoteur yi ñoo la kontaat wala elo moo amul safara comme yeneen booy wala lan. booy de Siteu yaakaar naa man su ma amee combat. Mhm. barke Serigne Bamba Mbaxay Siteu gis nga li may dugal stade. waaw loolu de fekk na ma ko moom jam jam saane la mujj a tëgg de. Siteu booy daa ko ñëw mobiliser wu Siteu. déedéet li man koy du toogaay bi moom a jaaxal stade booy daaxuñu ma taaral stade. Mhm. Siteu barki Serigne boo génnee booy di leen fekk si buntu bi booy fii la ñuy kii mujj booy xam lu ñuy def barki mm. Serigne Bamba Mbacké mujj gi dañuy jël seen xaalis dañoo xam ne carrément mbër mooy loolu dañuy jël seen xaar xaalis dama ko jox. di la ko jox naan ma mbër jàppal. ndeysaan am ko maanaam mm-hmm. mais Siteu booy nañ ñëw ñu bëre booy bëri nañ tey jii man keneen ak keneen xam nga mm-hmm. ñun ñoo mën a génnante daal dëgg la maanaam mais booy nañ ñëw ñu bëre te bàyyi dawante bi di maytu naan kii du ma bëre moom ndax rakku diw la wala doomu diw la. loolu du làmb. Mhm. waaw. Balla Gaye 2 bi ñu siy mhm. toll. ay mhm. Modou Lo yi bi ñu siy toll. a génn dañoo rayante génn dañoo rayante génn. mbëkkante seen biir te xool leen ci kaw. ñoom rek ngay dégg fi mu nii. dëgg la kon booy kaay leen ñu bëre. waaw loolu am na solo xale la ba nga xamante ni yaakaar naa ne Kër Massar buun am nañ si moom yaakaar famille bu mu bokk tamit am nañ si moom yaakaar dégg nga kàddu yu ko mujj jëflanteeg wuyu juróomi góor laataa muy gën àdduna dana ko gëmal sa bopp boo gëmee sa bopp gëmal sa bopp nga te wax na dëgg bu gëmee boppam xale la ba nga xamante ni ay moromam si kaw mënuñu ko donte day xaw di gëj a bëree di yéex a bëree tuuti promoteur ni ko gën a bàyyi xel waaye lamb yi tamit nañ ko gën a diggu ko xel xam ne ndaanaa la ku def sa ñetti sorti benn bi nga ñàkk ko am si ñaari ndam kon yaakaar naa ne yaa ngi si yoon kàddu yu mujj elu lan ngay tàggate lan ngay ñaax waaye Keur Massar yi nga xamante ngi sonni si yow di la jàppale waaw Siteu yaakaar naa gars yi waa Kër Massar dañuy sonn si man torop mhm. torop torop torop dañ may jàppale parce que Serigne Bamba ba saxaar naan damay gëj a bëri torop torop torop damay toog ay mois yu bëri du mu bëree mhm. saison mën naa ne benn combat laa si am mais tamit ñoom dañ si jàpp bu baax baax a baax salle bi may entraîné nag maa leen di sant di leen gërëm mhm. les imons ñaari seex yi maa leen di sant aussi di leen gërëm di sant sama coach Pico moom tamit seetaanu ma depuis booba tey si te boo ma xoolee xam ne carrément macha allah changement ngi am liggéey am na changement tamit xama mhm. sama waa Igri waa Kër Massar mbooloo ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm 100 pour cent Kër Massar bi tamit aussi bàyyiwuma leen. Mhm. sama waa koñ gars fi nekk sama frère Idi Sakho maa ngi di ko gërëm aussi mhm. moom da siy jàpp. sa Ousin Ndiaye moom da siy jàpp Pakala borom Seras moom da siy jàpp bu baax a baax a baax a baax Siteu. kooku noonu barki Serigne Bamba la mën naa ne kooku moo waroon a nekk mbër moom. ndeysaan parce que sëñ Ba mu tekk ngeen moom jox ma ko. muy bëre mu topp sama ginnaaw. Mm-hmm. dàqu ma ko bëre ëpp ma ko fit ëpp ma ko doole. ndeysaan parce waa koñ bi tamit mm-hmm. di sant aussi tamit di leen gërëm. Mm-hmm. di sant aussi tamit waa Kees. su ma nee combat dañuy mobiliser wu. ñoom Thiès barke yàlla billaay. dañuy jël ay kaar jóge ba foofu noonu ñëw teewee bis bi. ñoom tamit aussi maa leen sant di leen gërëm tonton maa lay ziar di la sant di la gërëm si te aussi tamit yow di la sant aussi tamit di la gërëm. Mm-hmm. parce que yow boobu dëgg neex yàlla. yow moom samay projet yaa ngi si jàpp bu baax a baax a baax. Mm-hmm. naa 5 TV moom sa kaw sa kanam. sa kanam amiin defal jàmm. noonu lay demee di leen jaajëfal di leen joxaat rendez-vous rek ak beneen daanal ak beneen champion ni lañ koy defee saa su nekk dañuy bàyyi ba tàkkusaan gi maase jàpp timis gi ñu doxantu xool leen yoo xamante ni làmb am na si ñoom yaakaar di wax waaye làmb nañ leen gën a bàyyi di leen jaajëfal di wax gars yi ngeen continuer di abonné dañuy xaar si Sénégal 5 point